Basuma Basuma Mbare tey vidéo bi du du gudd de day gàtt ndax dama sentir ne Ousmane Sonko ne s'est pas fait compris man dama sentir ne Sonko ne s'est pas pas fait compris bataille de com bi depuis bi ñu jàppee Sonko presse bi mu ngi koy mëne ko neexee non ñun ñu nekk ci. malgré vents et marées on tient vendredi Ousmane Sonko andil ñu bataille de comme boo xam ne mosul am dëkk bi tàkk dëkk bi toj mais sénégalais sénégalaise presse nu mu mënti demee tey Cheikh Yérim sek mere naa ko lool mais tey félicitation la koy wax parce que à lui seul à lui tey de tey wan na leen ne tey mooy seen baay yéen ñi ci topp ci Cheikh Yérim gauche droite mooy seen baay en grosso modo. Cheikh Yérim wan nañ ne mooy seen baay ci kom man depuis boobu maa ngi ci Sonko Sonko carré carré mais doomeram que ay ñoom nas ak ñiy partage vidéo xaw ma naka nas yow génnal nday sa avatar boobu moo gën ngay wax si ñun waa France da ngay tëj nday sa làmmiñ génn sa avatar journaliste si boppam booy wax bañ juum da nga koy bind ñun dañoo jàng bokkuñoo ak ay naakar naakar ñuy waxantu du ma tontu genre bataar yooyu làqatu ci ginnaaw ay avatar Sonko génne nañu cinq candidats depuis vendredi dëkk bi tàkk Ousmane Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko mais yéen ngeen bëgg ñu waat bi Ousmane Sonko génnee livre pétrole gaz ngeen delloo ko ci ay waxu bajo koy muy aji sar ñuy fexe bi génnee waat Ousmane Sonko ci góoto gi mu nekk ñu tëj ko ci prison bi Sonko génnee waat beneen tactique de combat boo xam kenn foog ko woon mooy cinq candidats ñun ñu nekk ci bataille boobu génn guñ ci Cheikh Yérim sek mais nag moom. ñëw génne leen carrément désexé carrément combat bi mais Cheikh Yérim Seck est-ce que candidat la est-ce que dafa wuti parrainage presse bi ak nekk ñu si tardé mon Dieu Cheikh Yérim Seck gain sa se voit que nag Cheikh Yérim Seck même la mémoire de Ousmane Sonko bu faloo président mënut a waa ji ndax moo leen sut ci kom mën leen ci kom lu ñàkk fayda la laal oustaz yeeg ñëpp nekk si talu ñu ndayam asu aw ma lu ma lay wax xam nga lu ma lay wax baal ñu ak ay góor lañu góor moo mel nii da nga yor sa lu baax bu la rëccee nga topp ci di daw lu la neex nga yàq deram c'est de bonne guerre affaire góor la def du dëgg du dëgg ça ne nous concerne pas yaa doon sey sëyatoo yal na la yàlla teg ci yoon bi gën bi nga nekkoon yal na la ko yàlla teg yow asu dama lay baalu àq nag ci jaru góor yëpp man du fi nekk di polémique ci ay waxu jëkkër jabar jamais de la vie ndax ñun lii du suñu débat ñu ngi ci parrainage ci parrainage naka la ñuy def ba Ousmane Sonko nekk kandida cinq candidats li ñu génnee pour ñu pare ñoom mari Marius Sagna d'ici dix jours la avocat yi war tontu keroog bi ñu génnee parrainage na naa leen ba plan B lañ doon bañ ñu àndal ñu ba plan E ñu demaat xam ngeen ne tey bu ñu signé Guy Marius Sagna métti métti da am na ay parrain El Malick ak ñoom ñëpp dañuy am seen parrainage waa léegi bu ñu leen signalee ñoom ñëpp ba noppi tribunal ñëw ne Ousmane Sonko dafay bokk kan mooy signalaat Ousmane Sonko kon mbaa xam ngeen ne suñu suñu parrainage yëpp ay fàpp yàqandoo ndax ay doublon dafay am dañuy wax nag ñenn ñi foog ne xamuñu lu ñuy wax moo ta tax Akhenaton cette fois ci dama lay ñaan bul tontu bul tontu kenn parce que ñu xam-xam bi ñuy waxee bul tontu kenn laisse le temps laisse le temps décider on laisse le temps décider ndax ñun xam nañ fi Macky Sall jëm on laisse le temps décider. parrainage bi signal ngeen cinq candidats yi Ousmane Sonko bokk na mooy ay doublon day am te bu ay doublon amee dañ bu liste yooyu du baax waxtaan wax dëgg neex yàlla moo mooy dëgg kon ma may kañ la ñu war a signer affaire bi damier la piège contre piège Ousmane Sonko génnee na cinq candidats gars yi ne wooy nañu daw ñii parrainel El Malick parrainel El Malick mais ñoom ñëpp bu ñu parrainé ñoom parrainage bi seen noo lay nekk nekk seen tur tur El Malick ñaay moo fa nekk tur Guy saa Sagna moo fa nekk tur Bassirou Diomaye Faye moo fa nekk tur Birame Souleye Diop moo fa nekk tur Abass Fall moo fa nekk par le nom Sonko es ce que yéen yaa ngeen di rendre compte lu ñu leen di expliquer nii pas le nom de Ousmane Sonko. moment bi xam nga ñun lu ñu mën lu ñu mën a def remobilisation des troupes Guy Marius Sagna mën nañ ko signaler en attendant mais le reste mënuñu signaler kenn parce que koo xasa signaler bés bu tribunal ne Ousmane Sonko day bokk caaf day xëma ah. kenn mënul signaler ñaar yoon sa carte ku nekk benn yoon ngay mën a signaler lii ma taxoon mooy leen duma wax si parrainage bi tant que Ousmane Sonko bokkul ndax man ci Sonko laay wax nu ma wax ci keneen ba keroog Sonko naan Guy Marius Sagna mooy candidat mais mais sinon moment bi ci Sonko laay wax je m'en fous mari Guy Marius Sagna ñoom El Malick Ndiaye ñoom ñëpp je m'en fous que tam waxtaan wax dëgg neex yàlla yaa ngeen ni xas beneen gel boobu sant ngom ak ñoom ñëpp yaa ni xas mais ñoom ay ñoom El Malick Ndiaye lu ñu leen gën la El Malick lu mu jiite lu mu toj gel boobu au moins baayam jox na ko société bu muy gouverner Malick Gakou lan la fi ñoom Abass Fall deful Malick Gakou deful. eh darajey Sonko ak barke Sonko la ñuy wax bu ñu nax ay nit doo fi nekk Sonko ak ñëpp a ci yem ñëpp ay nit lañ kenn du fi wàlliw kenn du fi xot bu zaman dañuy doxaan dañuy cotiser dañuy def lépp ñun ñëpp ay nit lañ si politique lañ nekk. foog ñu respectante tuuti décision bi sax a été bon non ñëpp jubilé waa léegi beneen piège yu état dugg na beneen piège yu état ñoom tam am na ñu leen di xalaatal c'est simple aywa signé leen signé on y va nañu signé lépp ba dépôt jot ñu ne Ousmane ko bokk na on va tout reperdre de deux yi am na lu ma doon vérifier lu ma wóorul woon ci tuuru Pastef ñu déposé bu fekkee au nom du Pastef laa leen wax lañ déposé su fekkee au nom du passif lañ déposé te Ousmane Sonko d' accord négociation yi jàpp leen ne n' importe quelle heure conseil constitutionnel moom xam ngeen bu leen neexee toog na leen carrément passif du parti politique dañ ko destituer kon maanaam suñu cinq yi ñuy parrainé yëpp même bu Sonko bokkul bu ñu parrainé cinq yëpp cinq yëpp buñ ko parrainé ça sera comme de l'eau comme ndox lay nekk je veux vérité de parce que piège baa ngi noonu. déposé ngeen ci tuuru Pastef ñu jox leen ay fiche de parrainage ba pare nee nañu Pastef tas na Macky Sall wax na ko fépp préparez-vous à tout moo tax tey ay can ay candidats indépendants tey Guy Marius Sagna tey yéen waa FRAPP bu Guy demoon seen tour assurance fa lay ëpp xam naa bu baax fi may waxee xam naa bu baax fi may waxee bu gii demoon ci tuuru Frapp fa la assurance ëpp Abass Fall bu demoon ci tuuru mouvement am fa la assurance ëpp fa la assurance ëpp fa la assurance ëpp c'est pas l'État qui a accepté au nom du passif DG e. bi bañ Sonko présenté wo bi bañ jox Sonko fichier moom moo accepté document yi mais document yooyu léegi buñ ko joxe état te Macky Sall institution générale de l' état bind par décret ne moom dissoudre na Pastef institution judiciaire bi bu recevoir e document waa Pastef si c' est l' état qui juge si c' est l' état laa lay dox l' état qui juge normalement même si c'est 15 millions dañoo parrainé le Pastef laa leen wax et qu'on a déjà destitué le parti Pastef ah su boobaa Badio Camara luñ ko mënti jiiñ dañ ko tooñ dëgg moo ma sonal de dëgg rek moo ma bu buñ demee ba cappaandaw ga Badio Camara na leen parti Pastef amul kon candidat Pastef yëpp moom sont irrécevables ay waleen lan la ñuy jiiñ Badio Camara lan lañ koy jiiñ ça c'est l'État ça c'est les institutions et puis c'est la République parce que c'est la justice qui qui vous parle actuellement ce n'est plus le gouvernement ni les partis politique piège baa ngi nii nag piège bi la leen doon wax moo taxoon ma leen Guy Marius Sagna ne demal boppam bu mu demee ci tuuru Pastef parce que Pastef dissoudre nañ ko te signé nañ ko fépp maa ngi wax di waxaat waa Pastef si boppam dootu ñu am fitu na leen dem leen signé ji parrainage yi kenn dootu am fitu ne leen signé leen parrainage kenn aywa dem leen signé signé leen signé bu Sonko génne ñu sacrifié ko yaa ti day am foog ñu xaar dix jours yi moment yi remobilisation daf ay porte à porte wane ne ñun ñu ngi fi ngeen créé seen i yëfi bopp yoo xam ne waa Pastef dañuy dem présenté carte wane ne Ousmane Sonko la ñuy signé ñu signé Ousmane Sonko. il faut qu'on soit clair là-dessus Sonko la ñuy xeexale mais ku ne. Guy Marius Sagna mën na signer à son nom versé ko au nom de Ousmane Sonko bu doon loolu bi ñu demee assemblée nationale te yeewi wàllu du tas so logique moo ma sonoon logique damier la piège la damier la tak tak du tigoo tak xaw ma nag luñ ci décidé mais tey bu ma sañoon Guy Marius Sagna yéen waa FRAPP ngeen dem jëli jiwaat seen beneen liste parrainage muy bu FRAPP ñu dem parrainer Guy Marius Sagna au non bu frapp xam naa lu may wax. Abdou Karim Gueye Cheikh Omar Diagne yéen waa partem war ngeen dem jëli ji fiche de parrainage bu Cheikh Omar Diagne partem mu dem parrainé ji. Tayour Sarr yéen war ngeen jëli ji seen fiche ngeen dem parrainé ji yéen antisystème yi war ngeen jëli seen fiche mais au nom de votre propre mouvement au nom de votre de votre propre parti. pa ci Pastef bu leen dugg ci affaire yooyu piège bi fa lay nekk état bi lu ko neex lay def. gouvernement def na lu ko neex président bu xasee bind signé capitaine Touré ak Sonko biñ leen rajee anamu fu ne dem nañ fa mais président moo bind signé du mujj fenn xam naa lu may wax waxantuwuma bañ dem ba fin temps nag ngeen xam fu ñu jëm di ngeen xam ne waxoon naa te waxaat naa la justice vous êtes le socle du pays mënuma waxaax ñuy làqatu ci ci avatar aw ma jotu tontu waa avatar gi possible j'ai pas votre temps parce que waxeew leen xam-xam ñun duñ jàng ba ne ar war a wax jàngale war a wax si njëriñ duñ ko bind bind lépp lu ci rafet si waxtu bi ñuy wax ñu téye luy xaw a déranger ñu génnee kilifa noonu lay waxee calculer leen de moytu leen de piège yi bëri na lal nañu piège yëpp teg bu ñu paree piège yi nag xam nga lan laay ragalaat ñu yuuxuwaat di wër fu ñu xeexi jee <laughs> même bu ñu nangoo Sonko bokk de jàpp leen ne ci tuuru Pastef a ah! Badio Camara man ci lu ma xam ba xam mooy am na kayit bu Macky Sall signé par décret après le ministre de l' intérieur bu ne tas na Pastef kon bu ñu demee au nom du Pastef di dina jëp fu ñu fogeewul comme nag da ngeen foog ne dañuy xeex Pastef wala faguñu bokkuñu Pastef fa tax ñuy wax on s'en fout de Pastef man bokk man je m'en fous de Pastef je m'en fous de APR je m'en de réew mi xam nga man ban parti laay votel nii Sénégal man sama parti mu ngi Casamance parti politique bu ngande boo xam moo jiitu seen Pastef yéex yi yëpp 1947 ba tey MFDC mu ngi am kon xam ngeen ne man su may wax c'est pas de mon intérêt je m'en Sonko moo ñu tax di xeex te ban Sonko moo ñu tax di xeex Sonko sénégalais bi nga xam yaayam moo leen gën nekk sénégalaise Sonko bi nga xam ne moom il se réclame sénégalais moo tax ñu ñëpp jog di xeex en tant que der bu ñuul pa ay affaire di partisan nekkuma ci loolu raisonnable laa leen wax tey ku nekk nag na nga ko réfléchir décortiquer ko ñu la neex mais waa Pastef si boppam amatuñu fitu ne leen yéen signé leen parrainage yi te tribunal jëlagul décision ci sooru Ousmane Sonko si day bokkam du bokk codé naa ko waat nag piège baa ngi foofu même bu Sonko bokkee bu dee au nom du Pastef la dem conseil constitutionnel lu ko neex jël décision parce que ay décret ngi tegoo ba pare. guddi nag dinaa live ndax guddi maa ci live bi lii ça me tenait à cœur parce que dañ may yónnee ay video yoo xam ne je ne comprends pas ma ne leen ah je ne pas mais man lii mooy dëgg. l' état c' est l' kenn mënu maa wax lu génn ci état ndax depuis départ su ma waxee ngeen ne sañoo ko. état sañu ko état sañu ko anam état ngi dem rek te état si mu bëgg a def fay yegg réfléchissez làmmiñ mënul régler xeex waxi kese réglewul dara ku xamul état nag yaay toog si suuf di waxantu wala di bërintu naan kenn mënulul dem leen jëlil seen gars yi antisystème yi nekk prison yëpp dem leen jëli seeni parti politique même Kaba am na parti politique Kaba ne la say partisan jëli ji yéen ñëpp dem si signé ji seen parenage yéen antisystème yi sonal leen Macky am na deux cent candidats no dem leen jëli ji waat Karim Gueye Abdou Karim Gueye biir kaso Abdou Karim Gueye am na mouvement bu mu bokk yéen waa mouvement am jëli ji leen parrainage bu amee il va se présenter comme président après on va voir fan la ñu jëm ak ñii système bi gars yi foog ñu xeex ko foog ñëpp ñëw code laay joxewaat la politique elle est plurielle basuma basuma mbare